Euh, di ñëw ak yéen aussi ci live tey bi nga xamante ne dañuy évoquer sujet wu sport ak violence au Sénégal euh, laata ñuy dugg ci sujet bi rek di leen fàttali que ne bu ngeen dee mën a di aimer yi loolu dina tax euh, YouTube di leen suggérer page bi mais en plus de cela ngeen bës cloche de notification bi. Euh, donc dans ce cas aussi ça permet publication boo xamante ne dugal nañ ko rek di ngeen ko am euh, direct ci seen smartphone seen tablette ou bien seen euh, n'importe quel appareil connecté live tey bi aussi comme niñ ko annoncé di wax ci la violence bi am ci sport au Sénégal bi ci njëkk mooy li ñu constaté dimanche passé jour combat bu Papa Sow Siteu combat boo xamante ne waroon na am depuis 2019 donc Covid bi jaar fi combat bi amul yooyu yëpp ñu comprendre ko ñu ñëw nag euh, ba le dimanche mu nekkoon benn fête nationale bu ñëpp di préparer combat bi raté na mu demee mooy Papa Sow bi nga xamante ne moom moo waroon bëree à la dernière minute recevoir na benn coup jéembe buñ ko dóor. mais on a aussi le droit d'essayer d'apporter ay réponses ci question yooyu. man sama expérience aussi parce que Dieu a fait que ne làmb ci nekk naa ci bind ci en tant que journaliste doon ci wax en tant que journaliste donc année yi nga xamante ne vraiment làmb ji dafa gënoon dox sax nag Sénégal vers les années 2012 2013 2014 ba 2015 maa ngi woon Walfadjri donc doon bind ci làmb doon topp làmb doon topp sport au Sénégal dans sa globalité donc man li ma ci gis mooy. violence am na làmb ji amul mais man sama réflexion maa ngi koy axé que ne ci manque d' expérience su CNG bi nga xamante ne moom moo toog c' est vrai ñun sénégalais yi wax nañu Alioune Sarr équipe am dañ fi war a jógee effectivement équipe boobu yëpp jóge nañ fi am équipe bu bees équipe bu bees bi mag combat bi nii moom moo nekkoon seen baptême du feu bi nga xamante ne moom la ñu njëkk tëgg combat bu mag. ci arène nationale non seulement ci arène nationale mais depuis ba ñëwee ba léegi am na ay combat mais combat bu toll nii combat bu déggee nii dayoo ñu ngi koy door am lan moo tax man ma ne CNG bi toog actuellement dafa manqué expérience boo seetee chaîne bi ni mu demee tëggkatu cité yi fi ñu toog Papa Sow fi mu jaar bagaar am fa ba gaañu gaañu am fa leneen sax mënoon na fa am. donc organisation mise en scène bi moom moo baaxul te mise en scène fan lay toog ban heure lay ñëw ban porte la war a jaar bu jaaree porte bi fan lañ ko interdire fan la wartu dugg bu ñu waxantee dëgg erreur boobu CNG bi génn ñoom yooyu dépassé woon nañ ko dépassé woon nañ ko donc boo seetee làmb ji bu njëkkoon dañ am am werante yooyu mbër mi fii lay toog ci bëgg féete penku kii ne non man maay féete penku CNG bi ñëw bu yàgg da lay exiger fii ngay toog fii la sa sabarkat di toog fii ngay toog fii la sa ay tëggkat di toog waroo jaar fii fii nga war a jaar kenn ku ci nekk am limite mais CNG bi ñëw tey dañu manqué d' expérience moo tax làmb ji demee nii bu ñu waxante dëgg bu naxante donc manque d' moom laa gis ci làmb jooju moom moo waral làmb ji faillir la preuve même bu demeewul woon nii sax da gis avant lamb ji gis nga nit ñi ni ñuy ni ñuy jaabante ci biir cercle fi bëri ñi di bëree te loolu noonu lépp CNG bi génn réglé woon na ko amoon na ay amaan ay exigence ñaata nit ñooy dugg ñaata nit ñooy topp euh, mbër mi et cetera man ci suma gis-gis ci suma analyse bi may def ak sama expérience bi nga xam ne ne am naa ko ci lamb en tant que journaliste mooy CNG actuel bi nga xam te ne dañoo toog donc war nañu revoir seen organisation war nañu revoir aussi seen i licence seen ni ñu koy defee ngir situation yooyu noonu bañ a amal sinon bu amul chaque jour les même sos ñoom ñoo ñëwaat les mêmes faits se répètent dëgg la nag dans la vie. pourquoi muy am mordom sport pourquoi muy am deret buy tuuru ci loo xamante ne ci violence la tegu mel ni ñun sénégalais dañoo mérité wul am sport bu tranquille am loo xamante ne maanaam ñun dafa mel ni ñun ak yeneen nit ñi bokkuñu pourtant am ñu différence espoir la làmb ji da gis que ni nit danga koy gaañ wala nga daan ko yëkkati ko di ko accolade supporter ba jógee fële tël la mel ni yow waroo ko accolade ki ñu daan parfois tamit buñ koy accolade mu bañ mais espoir la espoir la nawetaan bi tamit aussi boo seetee ña fa nekk ñaata at d'expérience lañu am ñoom am lu kan plus de dix ans ñu ngi ko def foofu noonu on ñu ngi fa am expérience am lépp mais aujourd'hui tey la nawetaan gën a am violence tey la nawetaan aussi bu Rufisque gën a am violence nawetaanu Rufisque ñi dëkk Rufisque ñooñu ñu bëri xam nañ ko stade bi nañ ko fi presque plus de quatre ans plus de cinq ans à cause de la violence ñu dem ñëwaat tey mu amaat violence donc où se trouve le problème Où se trouve le problème Ce n'est problème de localité, mais c'est un problème de management sportif. ñu toog xamal ñu lan moo ci nekk ci sport lan la ñu bañ lan la ñuy def di poser des débats aigus nit ñi xam lan mooy le sens du sport mais tant que defuñu ko fee yi mooy amande rek mu jeex ñii ñi agressé leen seen yoon nekkul dépassé woon nañ ko donc boo seetee làmb ji bu njëkkoon day am am werante yooyu mbër bi fii lay toog kii bëgg féete penku kii na non man maay féete penku CNG bi ñëw bu yàgg da lay exiger fii ngay toog fii la sa sabarkat di toog fii ngay toog fii la sa ay tëggkat di toog waroo jaar fii fii nga war a jaar kenn ku ci nekk am limite mais CNG bi ñëw tey dañu manqué d'expérience moo tax làmb ji demee nii bu ñu waxante dëgg bu donc manque d'expérience man moom laa gis ci làmb jooju moom moo waral làmb ji faillir la preuve même bu demeewul woon nii sax da gis avant lamb ji gis nga nit ñi ni ñuy ni ñuy jàppante ci biir cercle bi fi bëri ñi di bëree te loolu noonu lépp CNG bi génn réglé woon na ko amoon na ay amaan am ay exigence ñaata nit ñooy dugg ñaata nit ñoo topp euh, mbër mi et cetera man ci suma gis-gis ci suma analyse bi may def ak sama expérience bi nga xam ne am naa ko ci lamb en tant que journaliste mooy CNG actuel bi nga xamante ne dañoo toog donc war nañu revoir seen organisation war nañu revoir aussi seen mise en scène ni ñu koy defee ngir situation yooyu noonu bañ a amal sinon bu amul chaque jour les mêmes choses ñoom ñoo ñëwaat les mêmes faits se répètent dëgg la nag dans la vie donc euh, on apprend des erreurs d'aujourd'hui xëy na ñoom dinañ ci def réunion trouver solution xool ëllëg bu événement amee naka lañ koy gérer naka lañ koy euh, organiser ba mu jàll